alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidi almursalina wa ala alihi wa saxbihi dawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi ayu alxaadiruna walxaadiraat ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo rek ci seen émission shukran ci dakar midi point net bi fadilati Cheikh Alassane Sène taare yàlla ñuy ndokkale ñëpp nag ci weeru koor wu tedd wi di wax ne ñu ngi ci fukki fan yi nga xam ne yërmande yàlla kese la joo xam ne daf ko sëmbërtal ci kaw xeetam wi yàlla nañu ci yàlla boole te diigal ñu ci nangul ñu suñuy jaamu yàlla te nangul leen ko yàlla boole ñu ci xaaj bi ko war a teewi diwan boole leen ci ñi ko fekkee woon daaw te yàlla dogal ñu wuute ko ren yàlla na yàlla yërëm leen yàlla na yàlla woyofal suuf ci seen kaw yaatal seen bàmmeel te leeral ko àtte leen ci yërmandeem di nuyu nag mbokk yi nga xam ne ñi ngi teewlu jataay bi yépp te di ci ànd ak kontante euh, suñu jataay passé ñu ngi ko yëkkati woon ci gravité bi nga xam ne moom la làmmiñ mën a defal doom aadama euh, mbokk yi làmmiñ moomu sax dana dem ba yóbbi nit ki jëw làmmiñ mooy dem ba yóbbi nit ki fen te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngaloon ci xaddis ne aleykum bi sidq fa inna sidqa yahdi ila al birri wal birru yahdi ila al janna wa maa yazaalu rajulu yusaddiqu wa yataxarra bi sidqa xata yaktubahu inda allahi saadiqan yàlla ñu ko yàlla defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def mi nit ki du dañ di dëggu lu mu wax def ko lu mu dige matal ko lu dul ba dëgg dana ko ommat jëme ci ko ci yoon wu baax te dëgg day bu la ommatee ba dugal la ci yoon wu baax yoon woowu moo lay sóob ci aljanna nee na du ci yem ak yow danañ dem ba bind la ca xadratul ilahiya ne kii day nangeen ngeen seede ku dëggu la yal nañu ko yàlla defal yonent bi dellu wax ne na ngeen wattandiku fen iyaakum wal kadiba fa inna al kadiba yahdi ila al birri ila al fujuri wal fujuru yahdi ila an naar wa maa yazaalu rajulu yukadibu wa yataxarra bilkadibi xata yaktubahu inda allahi kadiban alayhi wa sallam nee na nangeen ngeen fen ndax dafa am danger mu ne fen nit ki du dañ di ci nekk lu dul ne fen dana ko ommat ba def ko kàccoor nee na du yem ak moom foofu dana ko ommat bu dugal ko safara nee na du yem moom foofu dana dem ba ñu bind turam fàng ci xadaratul ilaahiya ne diw na ngeen ko seede ne fenkat la yàlla nañ ci yàlla musal euh, fen mbokk yi dafa xaw a nuroo ak jëw te bokkunu jëw nag walla rambaaj laay wax sax boog rambaaj moo gën a garaaw parce que rambaaj mooy fekk ñaari nawley góor yuy ànd di jëriñante nga am loo bëgg ca kenn ka di dox ci suuf ak wax ba seen diggante tasaaroo kooku baaxul mbokk yi euh, dafa am benn boroom xam-xam bu ci nettali benn histoire bu xaw a doy waar mu ni dafa am benn waajoo xam ne dafa yor benn jaam dem ci marché bi di ko jaay bi mu egsee ku mu gaaral jaam bi rek dana ne la maa ngi la koy jaay ku mën a liggéey la ku sawar la ku maandu la ci yëfi jàmbur loo ko joxul soxlawu ko waaye daal sikk mooy dafa rambaaj di ko jaay ba yàlla dogal am góor génn góor gu ci yem xemmem euh, xemmem njariñ la néewal doole jikko ja jënd ko dem yóbbu ko këram bi mu jëndee xale bi indi ko ci kër gi mu def fi ñetti weer lëkkaloo ak soxna su góor gi xaritoo xaritoo gu yéeme ba benn bis rek mu xëy ne soxna su góor gi man daal ah, dama gis lu la war a lor te rus naa la ko ñàkk a wax ndax ni nga baaxe ci man ak ni nga ma yërëme wax dëgg yàlla duma gis lu lay gaañ te duma la ko wax soxna si ne ko loolu lan la mu ne ko sëriñ bi daal waxaale na ngoro ba su may juumul yaakaar naa ci fan yi danañu ko may te kañu koy may moo la gën di gone moo la gën a taaru te bu duggee ci kër gi yaakaar naa dootuloo tekki dara soxna sa fabu ne ko léegi nu may def mu ne ko man daal am na luñ ma jàngaloon ci suñu dëkk su ma la ko defee insha allahu soxna si sëriñ bi du am soxna mukk mu ne ko loo ma laaj ma jox la ko soxna sa uti gànjar gu bari uti alal ci ay bokkam ñëw jox xale bi xale bi dikk ci góor gi ne ko yëg nga ne soxna si am na far waxtaan nag far wi ba juboo nañu ba su ma juumul danañu la jéem a sàkkal pexe pour rey la ba mën a takk seen ngoro ñoom ñaar li ciy firnde nag boo bëccëgee na nga añ ba noppi nga tëdd nelaw nelaw la daas na paaka ba noppi rendi la rekk la bëgg ñëw ci soxna si ne ko li ma lay defal daal kawari sikki góor gi lay àndak soxna si bàyyi bu góor gi tëdd di sieste mu dikk samp tànk yi yóotu sikkim bi war ci dagg fi muy war a dagg góor gi ne xoñet yeewu téye ci loxo bi ne ko waxoon nañ ma ko ne ma danga may bëgg a rey yanu soxna sa dóor ci suuf ne ko deq rendi càmmiñal soxna sa ñëw yanu góor gi rey taawu góor gi ñëw yanu càmmiñal soxna sa rey dëkk ba toj xale bi dem yoonam mbokk yi rambaaj baaxul képp ku ko ci jëfandikoo na nga ko wattandiku parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aljanna koy rambaaj doo fa dugg yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp di leen jox da daje ci suñu beneen jataay ci seen émission shukran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu